dañoo gis benn déclaration boo xam ne Moustapha Mesere moo ko def di jàngat waxi sëriñ bi waaye da caa tudd nag xuddaamul xadim tudd ma ci personnellement ak sama tur def ca accusation yoo xam ne dara amu ci ah ma bëgg a leeral mu Moustapha Mesere yow laay waxal Moustapha Mesere euh, gannaaw bu ma la nuyoo ba pare dégg nañ li nga wax lépp au début à la fin que déglu nañ la ñun boromi xel lañ Touba la ñu juddoo Touba la ñu yoroo 68 ba léegi ñu ngi fi. li nga njëkk a dal mooy attaqué kuréel yi fi ne situé ci ñaari kuréel nga situé ci kuréelu xudaamul xadim ak kuréelu safinatul aman waaye des na yeneen kuréel yoo xam ni ca nga jëm waaw des na kuréel goo xam ni xam na ni ca nga jëm ndax yëg nañ nas bi nga xam ne nas nga ko yow ak ñi nga ko àndal ba ca fa nga xam ne mooy Tuubaa ci kanam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp yëg nañ kuréel yi nga xam ne sëriñ bi da koo sampoon ngir ñu bëgg leen a naxasal yow Moustapha Messere loolu na la leer te xam nañ ko danañ ci dikk nag parce que loo xam benn rek xam nañ téeméeram te mi ngi ak ñoom ah bi ci des nga wa nga defaat accusation wax ni Safinou Amane la nekkoon dañu koo dàq nangu carte ba déedéet loolu ay fen la du dëgg man maa bàyyil sama bopp dégg nga te loolu leer naa ñu la du ci dikkaat ah, yow nag Moustapha Messere ah, dégg naa li nga wax ba tudd. kenn ci force de sécurité yi duma ma ci tuddaat turam nañ delluwaat ci ginnaaw bërki démb ñun xam nañ ni euh, wax nañ ni li sëriñ bi tere yoon terewu ko kenn du ci jàpp kenn parce que yoon terewu ko waaye bi mu paree nag ba pare yow mu Moustapha Messere yaa créé groupe WhatsApp boo xam da nga ci doon défendre ñenn di xeex sëti sëñ Tuubaa yi ba dugal ci photo sëñ sa boo xam ni sëñ saa ci toog. ak doomam mu di ko jox ndogu ca kooru daaw jéeg ngeen di ci débattre la tax nga tub la tax nga tëj group whatsapp ba xam nga ko ñun xam nañ ko am na lu ñu xam ne te ñu ngi ko téye yow nag lañu laay tontu ba léegi ci loolu génnee sama photo wax ni Modou Diop mooy kan wax nangam nangam ñun euh, loolu duñ ci wax parce que ñun homme de ndigal la sëriñ bi moonu santoon digal nu ñuy def lu ñëpp gis lu leer loo xam ne danaa ñëw ci ci mujjantal gi ci bilan yi lu leer loo xam ne amul benn contestation waaye nag gembaat nañ la encore ndax du tey nga mas sa wax lii gembaat nañ la ci loo xam ne tudd nga ci pharmacien yi nekk Touba tudd nga ci comprimé yi nekk Touba tudd nga ci sax fraude bi nekk Touba ak autorisme yi nekk Touba ak leneen ak leneen loo xam ne ciblé nga ko yow Moustapha Messere ak ñi nga àndaloon pour ngeen def benn diabolisation maanaam def benn yàq dégg nga waaye nañ xam ni sëñ Touba kenn mënu ko yàqal. képp ku ko jéem a yàqal ci biir tiwab bu yàqu ngay dugg te loolu lañ gëm ndax sëñ Tuubaa lañ gëm léegi nag kon euh, xam nañ ni euh, am na foo jublu te fi nga jublu ak ñi nga àndal mooy dindi li fi sëñ Abdu Lahat defoon yow mu Missiré dindi li fi sëñ Abdu Lahat defoon mooy forot bi li fi nekkoon ak nangam ak nangam lépp ñu jële ko fi homme de ndigal la ñun insécurité la ñuy xeex ak sécurité bëgg Touba am sécurité yàlla nu ko defal li yàlla def ci nit ki nit ki daf koy nangu dégg nga soxor baaxul euh, nee nga dañuy arrêté ay oto di leen contrôler loolu du dëgg encore ñun duñu contrôler ay oto contrôler wuñ pièce contrôler wuñ permis oto buñ ñu signalé ni dafa yeb lu ñuy tere danañ ko jàpp jàpp nañ fi yàmba jàpp nañ fi cigarette jàpp nañ fi oto yi sàcc ay xar jóge mbakke di dugg ci Touba sari ñu ngi ñuy dégg ay oto yoo xam dégg nga li ko ay xar lañ sàcc jébbal ko yoon ak police ak gendarmerie comprendre nga lu dul jeex kum neex dugg ci YouTube bi kum neex dugg fépp gis li ñu def li ñu def li ñu li ñu def lu ne fàng la am na nag ñoo xam ne ñoom bëgguñu ñun da maanaam li ñuy wax fiiraange am na ñoo xam tam ci population bi li ñu bëgg mooy ñu génne structure yi pour ñu mën a firi seen bopp def li leen neex mooy góor jigéen yi duggaat fi ñi nga xam dañuy contre Sëñ Tuubaa dugg fi ki nga xam ne kum neex gëm lu la neex parce que réewum laïcité lañ nekk ñëw dugg fi def lu leen neex sàcc yi amaat fi doole naafiq yi amaat fi doole waaye loolu day dañ gis nga lii day dañ kon bay boo ku ci wax mu wax ci ndànk surtout yow Moustapha Messere loolu nañ ko bàyyi xel ñun contrôlé wuñ benn oto loolu amut bi ci des mooy nee nga dañuy filmer nit du ko dugal ci vidéo waaw waaye duñ dugal kenn koo xam sa jëmm jëpp day feeñ ay góor jigéen lañ jàpp ak ñu sàcc mais mbuur ki ñu rey barki dem ki rey fetal waa ji jëmm ji yëpp lañ génnee ki rey nit ci gaar bi barki dem jëmm ji ñëpp lañ génne maa ngi lépp jëmm ji ak kanamam ak lépp ak ñeneen ñu rey ñoo xam ni yoon jàpp na leen te dañoo génne filmé jëm yëpp mu ngi man sama portable bi am naa ci lu leer a leer euh, li ngay def danga koy bàyyi ñun sëñ Tuubaa la ñuy xeexal te yow mënoo tee ñu xeexal sëñ Tuubaa ak keneen ku man di doon yow Moustapha Messere loolu na la leer ay góor jigéen du fi am yooyu yëpp du fi am waaw yow nag bokk na ci ak ñi nga àndal ci ay lobby bëgg ñu sànni lëg ca lay ba maanaam Tuubaa nañ ko bàyyi rek lu neex waaye def ñii fi war a dugg dugg fi lu leen neex def loolu mooy sa objectif dégg nga bi ci des yow mooy Moustapha Messere muy tudd sama tur wax li nga wax ah yow xam nga ni li tax ñu dugal la ci mairie bi xam nga ko wax ak ay saaga ak wax ay dara dem bañ xam ni yow da bari wax dégg nga di wax di contre di wax di contre ñu dugal la ci mairie bi nga noppi man Modou Diop du ko ñu dugal ci mairie may noppi li naan béy kenn ko rey ci rondal man xaalis géruma ay millions géruma pour ma noppi te nee naa leen am na leneen loo xam ni danaa ko gën a déployer ba mu gën a leer nañ ku fi wax nag dal ci xuddaamul xadim wala nga wax tudd Modou Diop wala nga wax tudd loo xam ne dégg ko war naa caa wax fa saasa danaa la ko delloo parce que xam nañ ni réewum communication la te nit ñi ñuy dégg dafa am loo xam ni boo ko waxee ci communication te waxuñook ak yow rek day mel ne dégg nga la ko du weddi du dindi mais setal sa der la. mu Moustapha Messere loolu moo tax nga dem ci mairie bi loolu moo tax ñu xëcc la du yow képp y a de personnes yoo xam ni xam nañ leen bu ñu waxee lu bari. nar a contre nit ñu woo la ger la man woowoon nañ ma dima ger maa lànk li ma xam ne ñu koy dégg lànk naa damaa lekkul ger dégg nga muy benn bi ci des mooy moo tax ñu fal la conseil dikk naa ci bi ci des mooy bërki démb intervention bi ma mujjee def yow yaa ma boole maag ku ñu wax Muntaxa Jóob moo nekk fi nga xam ne mooy pale Njuga Kebe ngir sàngara soo fa gis ak tux mu fa gis ak cigarette ak ñu fay naan ci tàppaatu seng bi ne foofu nekk ci buntu pale njuga kebe yow yaa moo téléphone ni ma dem fa ma dem fa saytu ji ko naa fiq baaxul ñun sëñ tubaa lañ àndal ñun sëñ am sa lañ àndal du ñu ay ragal du ñu ay tappet ñu leeral la ko ba tàyyi te lépp loo xam ni nit wax na ko te teguwul ci yoon mu war a leer sëñ bi danañ ko leeral lépp te duñ bàyyi dara na leer ma wax la ko nag am na nag yu ñu yor yu gën a garaaw yi ngay wax te mi ngi ak ñun bi ci des mooy bi ci des mooy yow Moustapha Messere ak ñu mel na yow yéen yéenay xeex war yéen yéenay xeex war may Touba yéen bëgg Touba mel na dëkk yépp mel na banlieue mel na ndakaar loolu mënul nekk loolu mënta nekk c'est impossible bàyyi na Dieng Seblaas fi la ñu fekk. sëñ Cheikh Gaynde Fatma fi la ñu fekk sëñ Mbacke na fi la fekk sëriñ Saliou fi la ñu fekk xam nañ li fi daan dox ak la fiy dox lépp yow moomu nag ak ñu mel ne yow yaa bëgg a jëbbalu si li nga xam ne mooy sëti sëñ Touba si leen ba nga xam ne euh, dégg nga la ànd bi ñu war a ànd duñ ko mais tuut nga ci ñoom ba ñu ànd fekke ko te lii nga wax tey ci ah Rafah TV li tax ma ñëw mooy du tey rek nga ko wax de yàgg nga ko wax. sa golf boobu nga yor dugg naa ci barki de dugg naa ci fanee ci ginnaaw loolu nga doon expliquer di ma ko wax 28 nga wàcc di jël ci koñu kër sëñ Modou Lo Ngaabu di jël ci wari bi xaalis kon loolu na la leer léegi nag foofu laa ci yam pour tontu la ñun nag sëñ am sam sëñ blaat la ñuy déglu ndax kuy liggéeyal sëñ Touba ba ñi adduna bi yépp xam ko monde entier xam ko waaye waaye bu la sëñ bu ki lay liggéeyloo bu la nee toogal doo toog mais yéen déggu leen sëñ bi tudd xuddaamul xadim mais ñi nga xam ne bëgg nañoo libre ak bëgg am afiya moo tax ñu dugal ko ci di ko ci dugal yëg nañ lépp mais dañuy ñëw rek pour leeral pour askan bi xam bilan bi mooy xu daamul xadim bi mu tàmbalee ak léegi ci gàttal ci gàttal ah li ñu fi jàpp ci produit primé yoo xam ne ay antidate la li ñu fi jàpp ci ay tamaate yu bon li ñu fi jàpp ci agression li ñu fi jàpp ci sàcc li ñu fi jàpp ñu yor ay fetal yow ay bal nit ñu fi jàpp ci viole nit dégg nga li ñu fi jàpp ci ñuy jaay seen bopp ñoo xam ni ak ñi ñu fi jàpp ñoo xam dañoo wax tëgg ñu wutaleen autorisation xanaa da ngeen fàtte da ngeen di bëgg a fàtte tere si Abdou Lahad yi le 18 septembre 1980 da ngeen ko fàtte dañ koy bëgg a fàtte bu ñu ko kenn fàtteel fii am nañ fi ñaari at yoo xam ni ñaari at yépp at couvre-feu kenn gisu fi kenn ñun xuddaamul xadim lañ fi doon gis ñoo taxaw bis yépp màggalu bis bi sëriñ bi njëkk a woote muy bisu xasida yi ñoo jaayanteeg suñu bakkan taxaw ko bisu sikrullaahi bi ñoo jaay taxaw suñu bakkan taxaw ko ci yi ci gàttal màggaluk daaru xudóos màggaluk njenne màggaluk sëñ abdou xadir màggaluk euh, sëñ ma sàmba màggal yépp en général ci ñaari at yooyu ñoo ko doon gérer deuxièmement teg ci ñi problème yépp ci hôpital yi couvre-feu bi daawuñu génn da ko fàtte dañ leen daan téye ci biir hôpital yi lu ngeen génn ndax Covid bi boo paree na nga wax ci loolu pour Covid bi ñu ne ci biir hôpital yi man maa doon dem ñi doon woor di leen jox ndox ak ndogu di leen jëndale ay ordonnance di yóbbu ay nit fii ba Ndakaaru ñoo xam dañoo waroon faatu loolu na ko population bàyyi xel xam ko du jeex hôpitaux yépp mën nañ ko seede am na ñoo xam ne ni biñ leen fajee ba ñu wër bañ leen a yóbbu seen kër ci sama oto laa leen teg am na ñoo xam ne dañoo faatu woon seen biir kër kenn nanguwu leen a laal man maa leen doon jangat jangatee mën naa ci tudd kenn muy euh, Baye Moustapha Dia yal na ko yàlla yërëm te jégal ko xaaral ko àjjana ak ñeneen ñu baree baree baree baree baree baree ñoo xam ne ñun ñoo demoon doon leen doon leen defar ak di leen sàng dawuñu ci woon dara ba ci bi nga xam ne mooy hôpitalu euh, bi nga xam ne mooy daaru hôpitalu euh, bi ñuy wax daaru ma naan ñun ñoo doon teg barrière bi ñuy sànni barrière yi ñun ñoo ko doon dugal ci biir keroog sëñ Abo Mbàkke moom ma mu Falloul moo ma jox ak ñaan ni ma jëfandikoo ko te dem joxal ma ko malade yi maa dem ba ci moom jox leen ko bul bu leen ko fàtte bu leen fàtte li passé dégg nga di def nag ak fi ngeen jëm ak li ngeen nar yow Moustapha Messer ak ñi nga àndal parce que yow rek laay cité parce que yaa génn ci Rafah TV xam naa ci ñeneen yoo xam ni nee naa leen waxaguma danaa wax lii ñamale la rek mais waxaguma danaa wax am naa ay argument yoo xam ni dama ko téye ci sama loxo yoo xam ni dama ko téye ci sama loxo te lu leer péng la gis nga nañu waxante rek dëgg dégg nga bi ñu def gaar ba ñaari weer fekkoo ñu fa yow nag dañ laa yabal dañ laa yabal am na ñu la yónni yow Moustapha Messere am na ñu la yónni ba tax ngay manipuler di am looy dox waaye na nga xam ni sëñ Touba du ko kenn koo xam ne déngale ko mën nga koo nax déclaration bi sëñ taxaa man awma ci njàngat ku ci amul njàngat njàngat ci sëñ Mountakha la ñu gëm sëñ Mountakha la lañu yaakaar sëñ mun la ñu wóolu ndax mooy sëriñ Touba li mu wax amul contesté waaw rek la sant ñun sëñ am sa lañuy ñuy déglu waaw rek la sant yéen àdduna bi nag yéen sénégalais yi sénégalais yi yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen sëñ Touba te gëm sëñ Touba te wóolu ko. nga xam ne bu bu bu pal jeexee lépp jeex ku ñu teg ci biiru bàmmeel tey ci kuusu bàmmeel ku ñu la moomale ku du sëñ Tuubaa boo mënoon a jóg doo jël yat jees ngay jot sëñ Ablaat waxoon ko euh, na ngeen bàyyi xel bu baax ni am na la ma leen waxoon ñu dëgmal Tuubaa ngir bëgg a sàggi deru sagub Tuubaa ma kenn nag waaye am naa lu ma ci xam sàgg derub Tuubaa pour bëgg ko yemaleeg dëkk yépp loolu nag ñun Tuubaa lañ dëkk duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba ci gannaaw Cheikh Mamadou Mountakha la ñu nekk lu të xam nag daa yàggul waxi sëñ Mountakha kenn ko jàngat ñi ngi ko ciy sant di ko gërëm waaye waaye kuy liggéeyal sëñ Touba ne ci gar ci sa bakkan gar ci sa temps di ci def lu nekk bu la sëñ bi nee noppalu doo noppalu waaye ñun dégguñu fu ñu sëñ bi tuddee ñun noppalu waaye nag ñun suñu problème mooy Cheikh sëñ am sam sëñ blaat lañuy ñuy déglu ah, ba mu joxee digal nee nañ tekk nag te waxoon naa ko barki démb ci fan yële ci gannaaw yàgg na gaa yi sax ñi ngi koy tegaat bi ma nee ñi ngi xaar sëñ Cheikh Bass ba mu ñëw fii ku ko dégg na ko wax waaw parce que la taxoon ma di ko wax mooy lii naroon a juddu te xamoon naa ne lii dana juddu xamoon naa ne lii dana am moo tax ma buggoon teeloon a gis seex bas leeral ko mbir mi ba xamal ko li ci xew lépp te des na am loo xam léeragu ko te dana ko leer insha allahu rabbi ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jégalu ñëpp di ci wax ni lu ci dëng nañu ma jégal lu ci jub nag yàlla la waaye deuxièmement ñu monte génnee samay photo man doomi dëkk bi laa am fi ay jabar am fi ay doom am fi ay nawle bokk ak ñëpp bokk di sëtub maam ma tàndumbe ma sancoon kooku ñu tuddee ma maam Modou Xëri ba pare di sëtub sëñ Bay Fallou Ndiaye kenn du ma jam di dem naa ni loolu du fi am Moustapha nag yow ñi ngi lay xaar di xaar keneen koo xam ni dana tudd Xudaamul Xadim wala mu tudd Modou Diop Diawbe xam ni am naa ay preuve yoo xam ni la ma ca mën a wax waxuma ko yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh jërë ngi leen sant di leen gërëm Thank you.